au Sénégal mu tëmbe woon nag aussi xeexu contre le franc CFA jóg mais seetlu nañ ci diggante bi boobaak léegi combat yi ngeen di porte yoonu France nekku ci benn bi mooy justice bu doxul bu tëddewul njaaxaanaay benn bi mooy spoliation foncière bi nga wax beneen bi mooy ak ak yelleefu doomu aadama yi ñuy salfaaje yooyu yëpp yoonu France nekku ci est-ce que jotul ngeen adapté FRAPP France dégage à cette nouvelle réalité bu ko jëree sax ngeen soppi tur wi parce que nekkatul rek France dégage comme jamono ya nga xam ni ci lañ doon samp Auchan wala ñuy xeex contre le franc CFA. Euh, Momar boo dégluwee Babacar bi mu may présenté dafa ne mbootaay bi FRAPP la tudd. en réalité mbootaay bi FRAPP dong la tudd mais FRAPP. front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine loolu mooy suñu turu mbootaay mais FRAPP dafa bari ay campagne maanaam dafa bëri ay yëngu-yëngu mm-hmm. léegi nag bi ñuy sos FRAPP campagne bi njëkk mu ngi tudd pour la souveraineté monétaire France dégage maanaam ngir am suñu moomeelu bopp ci wàllu koppar mm-hmm. France na génn loxam ci suñuy koppar ci franc CFA ba léegi xeex boobu mu ngi continuer waaye léegi nag parce que réew mënul génn ci ndóol mënul régler mënul saafara ñàkkum xëy chômage te moomul boppam ci wàllu koppar d'ailleurs réew yi nga xam ne ñoo gën a génn ñoo ñoo ñoo gën a génn ci jafe-jafe mbas mi mooy réew yi nga xam ne d'accord dañoo moom seen bopp ci wàllu koppar mm-hmm. maanaam jëfandikoo maanaam koppar ngir euh, maanaam ngir saafara jafe-jafe yi nga xam ne moom la àddina bi doon jànkonteel donc pour la souveraineté monétaire France dégage loolu mooy effectivement ci wàllu koppar kan moo bokk ci suñu koppar te du nit ku ñuul te du africain France la du Chine du États-Unis du kore du Brésil donc foofu France la ñuy du duut baaraam ne ko France yow démb xaw ma barki démb mhm. dégg ngeen Macron mhm. nee na les Européens doivent cesser d'être naïfs ci seen diggante ak États-Unis mais ñun mhm. loolu la ñuy wax ne ñun nit yu ñuul dañoo war a fer ci nax yi tubaab bi intérêt wam la te daf fi am ay nit yu ñuul yoo xam ne ñoom la ñu fal au lieu ñu jaamu suñu soxla ñun au lieu ñu jaamu suñu bëgg-bëgg ñun nit yu ñuul ñun sénégalais ñun ñun malien ñun togolais ak ñoom seen ñuy jaamu soxla Alstom ñuy jaamu soxla Auchan ñuy jaamu soxla Eiffage ñuy jaamu soxla ak ñoom seen loolu moo war a dakk la responsabilité nag première mooy ñun suñu responsabilité. Mm-hmm. moo tax d'ailleurs nous ne sommes pas du tout tendres ak président Macky Sall li ñuy wax mooy lii tax Sénégal toll fu mu toll mooy président Macky Sall dafay détourner am amu Sénégal dugal ko ci poche am moom ak ñi mu àndal beneen pàcc bi mu jox ko borom doole yi nekk bitim réew loolu képp ku ko def doo am xaalis bu doy pour saafara bëgg-bëgg ak jafe-jafe ci wàllu njàng ci wàllu wér yaram ak ñoom seen et donc effectivement di nga am euh, jafe-jafe pour am ay euh, ay médecin yu doy di nga am jafe-jafe pour am jàngalekat yu doy mhm. ak ñoom seen di nga am jafe-jafe pour am kaaraange bu doy mhm. donc loolu moo ngëb Sénégal moo ngëpp Afrique et donc fook ñu am ay njiit ay élus ay ndaw yoo xam ne duñ fi nekkal benn seen bopp ñaar di signer ay accords yoo xam ne baaxul ci ñun léegi nag Auchan waaw ñun en fait suñu commerçant yi moo ñu gënal doomi réew mooy tabax réew d'accord lan moo tax ay atang yi ñuy sur place di naan waaw ana croissance bi ana croissance bi ana croissance maanaam ana alal bi nga xam ne moom la FMI ak banque mondiale naan at bu nekk ñun pays africain ñu ngi koy meññal te ñun askan wi gisuñu ko mais alal boobu am na mais li am mooy croissance boobu mm-hmm. absolument c'est une croissance extravertie maanaam mm-hmm. entreprise yi koy yi koy meññal du ñu ay doomu Sénégal du ñu ay doomu Afrique et donc doom yi ko defar. yi ko meññal muy doomu bitim réew. Mm-hmm. bénéfice bu amee. dañ koy yóbbu bitim réew donc ñun mm-hmm. loolu mooy suñu gis-gis. Euh. doomi réew mooy tabax réew. Mm-hmm. et d' foog naa ne wax màggal fàttali na ko. nañu bàyyi di déglu Paris ak Washington te di déglu Tivaouane Cambérène euh, Touba Aline Sitoé Diatta d'accord Yacine Boubou Thierno Souleymane Baal Cheikh ante Diop ak ñoom seen nañuy déglu ñooñu te bàyyi di déglu doxandeem yi nga xam ne tubaab yi nga xam ne seen njëriñ rek moo leen fi teg léegi damay ñëwaat say votre votre façon de lutter ba léegi